ñi nga xam ne ñoom ñoo toog fii tey mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy agent de santé bu ma waxee agent de santé mooy brancardier yi mooy ñi nga xam ne ñooy yóbbu malade yi ci service yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy bale chambre malade yi ñoom ñooy fax tax hôpital yi di set mooy hygiéniste yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy transférer malade yi mooy ambulancier yi mooy infirmier yi mooy sage-femme yi mooy technicien supérieur yi mooy médecin yi mooy même professeurs yi service yi donc ñun dafa am benn situation boo xam ne dafa xew mooy président de la république dafa génn télé ñépp di ko seetaan mu ne képp koo xam ne dafay liggéey ci covid 19 weer wu dee bu jot war nañ la fay cent cinquante mille francs boo xam ne dañ la koy motiver pour sacrifice yi nga xam ne yaa ngi koy def donc bi nga xamee ne covid bi tàmbali na mooy première vague bi motivation yooyu ñu ngi ko daan fay waaye dañu seetlu ne bi ñu demee ba ci deuxième vague bi fin deuxième vague bi ba troisième vague surtout bi ñu yegsee ci mois de d' avril pour certains motivation yooyu dañoo xëy xëy kenn fayatut ko mu nekk situation boo xam ne ñun comprendre ñu ko parce que non seulement fayuñu ñu mais amuñu benn yoon boo xam ne taxaw nañ ak agent yooyu nga xam ne ñoom la ñu war a yoreel xaalis boobu ñu expliquer leen raison yi tax fayuñu leen donc ñu gis ne situation boobu manque de respect la manque de respect la ndax dafa am ay sacrifices yoo xam ne dañ ko def te yombul mooy bi nga xamee ne peuple sénégalais bi yépp jaaxle nañ bi nga xamee ne même ay agents de santé comme ñun jaaxle nañ ragal nañu dem au chevet des malades ñun ñoo sacrifié wu am conscience patriotique dem ne dañuy xeex quitte à ce que ñu bàyyi fa suñu bakkan waaye dinañ fexe ba population bi jàngoro bi nga xam ne moo leen ñëwal du leen gañe ñu nekk ci loolu pendant de des années parce que mat na ñett at léegi trois deux ans et plus donc motivation yooyu di tardé mu am benn sitin boo xam ne amaloon nañ ko bintu ministère bi ñu si jógee ñu dalal ñu biir ministère xamal ñu ne ñu motivation yi li taxoon ñu arrêté mooy xaalis bi nga xam ne moom lañ ko doon fayee xaalis boobu moo manqué moom lañ amatul en fait. Euh, ñoo ngi fàttaliku suñu mbokk suñu camarade Guy Marius Sagna Euh, bindoon na fi benn post di wax waxi santé état di Sénégal jàpp ko tëj ko tey yaakaar naa ni histoire bi jox na ko raison euh, ndax ci pays bu normal ñii tey dañ leen waroon décorer mais poste Guy Marius boobu noonu toujours day firndeel day dëggal ni en réalité fii ci Sénégal. ñu li nga xamante ne moom mooy santé euh, ci période Covid ñun waa FRAPP dañ ko yàggoon di wax coronavirus naam am na wante corona tappale am na corona business am na ndax lii business la tey suñu toogee ay liggéeykat ñi nekkoon ci front jël ay risques ñu war leen fay état du Sénégal mu ne déet duma leen fay loolu du dëgg du yoon cinq wax na ko hôpital Dalal Jàmm huit mois Sami douze mois Fann six mois cinq mois loolu vraiment gàcce la ñoo ngi xamal nag euh, ki nga xamante ne moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr naam moom am na jot di def campagne gis ngeen ko fan yii yëpp moo ngi génn ci mbeddu Dakar yi di lambar lambar yi nee na xaw ma day saaf gerte lu muy moom gerte boobu noonu bu muy saaf na ñoo wuyu ñii loolu mooy wax ji. et également day gën a confirmer télé bi nga xamante ne gouvernement Sénégal am nañ ko ci gestion Covid 19 bi ndax gestion bi yëpp soo leen ko xoolee mbirum par par loola Mansour Faye Sall la ñu joxoon suñu ceeb bi boobu ba léegi askan bi ñoo ngi yuuxu xaalis bi nga xamante ni ñii waroon na leen ko fay xaalis boobu nag boobu lañuy jël encore di ko campagne moo tey nag ñun waa FRAPP dañuy nekk seen wet. mais ñu xamaloon nañu comme demee na nii ci délai bu gàtt ministère de la santé dinañu restituer l'ensemble des moyens yi nga xam ne moom lañ ñu yoral waaye ñu gis ne depuis bi ñu waxee loolu ba léegi tey la mot weer amut benn somme boo xam ne versé nañ ñu ko te li gën a doy waar mooy hôpital yi ñu ngi leen yorel. boo xoolee dalal jàmm huit mois lañ leen yoreel boo jëlee hôpital bu mel ni Samy douze mois maanaam année entière fay ñu leen boo jëlee hôpital bu mel ni fànn wala hôpital bu mel ni principal ñu ngi ci cinq mois léegi yow ñu nga yoral leen ay huit ak cinq mois nga ne leen deux mois nga leen mën a fay après le reste bu ñu defee buñ buñ bu ñu voté budget deux mille vingt deux bi di nga leen fay li des ñuy laaj ministère de la santé ñi nga xam ne seen contrat yi dañuy jeex au 31 décembre 2021 nan la ñuy toogee seen kër di ñëw di demander ministère alors qu'ils ne sont plus agents de santé seen xaalis boo xam ne ñoom ñoo ko liggéeyoon ca 2021. ñu wax ne manque de respect weesuwul ay agent sacrifier seen avenir parce que ci ñun am na ñoo xam ne dañu décédé am na ci ñun ñoo xam ne dañoo contacter feebar bi am na ci ñu def ay Covid long ba léegi am nañ ay séquelles. am na ci ñu perte seen yaay ak seen papa am na ci ñu perte seen rakk seen i jabar am na ci ñu mënul woon dem seen dëju yaay seen dëju pap tey Sénégal kër goo dugg am na au moins benn nit boo xam wala mu nekk sa mbokk boo xam ne perte nga ko ci Covid 19. ñuy wax ne ñooñu am lenn lu ñu leen di fayee tey gouvernement Sénégal lu dul toog di leen yoreel xaalis tey comme ni ñu ko waxee sànq moment bii dañu waroon a toog président la république di xalaat naka la dalalee pour wax. pour xool possibilité recruter képp koo xam ne mu ngi woon ci Covid parce que yaakaar naa ne mérité na ko waaye defuñu loolu non seulement contrat yi baaxul ay contrat de prestation lay signal nit ñi mais après ñu leen yoreel xaalis boo xam ne c'est des miettes ay miettes la parce que ñoom ñu ngi maye ci biti gouvernement Sénégal bi xaalis boo xam ne ci lu ñàkk fayda lañ koy maye ñun nag dañuy wax gouvernement Sénégal bi que li ñuy wax nii ñaanuñu ko ko dañu liggéey liggéey bu métti. képp ku mës a am Covid ñëw hôpital mën na seede ne guddi ba à partir de 16h ba 6h du matin amul benn agent de santé buy fermer bëtam te def nañu ko ñaari at parce que chaque fois ñu ngi au chevet des malades loolu population sénégalaise bi ñu ngi leen ciy jël en témoin ku ne mën na koo seede agent yooyu sacrifice yi ñu def raar bi ñu raar seen kër yi dëj yi ñu mënuloon dem jafe-jafe yu ñu am yépp ñu mënoon a am loo xam ne dañ koy taxawoo tey seen waa kër yi woon leen ne sacrifice yi ñu def yépp bariwul waaye nag lii lañ ci jëlee ñuy toog di ñu yoreel xaalis ñuy wax ne loolu irresponsabilité bu extra. xam naa ne conférence presse bi saa yu jeexee incha allah dinañu toog ak moom fii ci ay diir yu incha allah ñun waa FRAPP dinañu organiser ak ñoom li nga xamante ne état du Sénégal da leen di fay ci nii baa ci nee ndax ñaari ñu leen seen i droit la seen i la seen i yelleef la lii lii mooy violence en réalité. violence bu ñuy wax fii yëpp lii mooy violence ndax jël nit ki war ko fay nga yow déet doo ko fay loolu violence la moo tey dañuy xamal ni le président Macky dafa mel ni moom bu mu toogee fii ci Sénégal ba léegi dafa confirmer maanaam dafa dëggal dafa légaliser li nga xamante ne wax waxet